ak contentement bu mag a mag a mag jàkkaarloowaat ak yéen mbokk yi ñu ngi jëm ci bés bu mag bés boo xamante ni kañ lay xew ñu ne le 27 mars kan lañ ci àndal le Don King de l'arène Gaston Xaali Meng indi ñu ñaari champion ñaari mbër yoo xamante ni ku ci nekk da nga marqué sa empreinte kii moo jële woon roi des arènes ci ki nga xamante ni moom mooy Bombardier mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di nuyu réew mi di nuyu biti réew Eumeu balaa nuy def dara dama lay bàyyi nga nuyoo ak sénégalais yu bëri ñi ak ñu nuyu ak ñu lay ñu ngi sant yàlla bu baax di julli si yonent bi di gërëm suñu ñaari waajur mag di ñaanal kilifa diine kilifa aada yi di ñaan senegal yàlla na fi jàmm yàgg. yàlla nañu yàlla musal ci li fi passé woon yàlla na yàlla yokk xéwal bi yàlla yàlla def gudd fan ak wér-gu-yaram du nuyu diaspora bi yëpp nag fépp Sénégal nekk rek ñu ne nuyu rawatina Pikine bi nga xam ne fi laa juddoo yaroo fi màggee fi fi laa déggee daal yi fi laa nekkee champion d'Afrique tey ñoo ma gunge entraînement géej mbappat ba arène ba tey yàlla def ma nekk ma dégg daal yi kon man Pikine bii fi laa juddoo fi laa yaroo aw ma lu dul xeex bi bëre bi coono yëpp du leen lu Pikine am ndam kon tamit aussi fii ma juddoo yaroo fi màggee fi balaa maa sant kenn ñoom laay njëkk sant gis naa seen teewaay gis naa seen jàppale gis naa tamit aussi ni ma ma taxawoo su ma jugee ci loolu maa ngi euh, si gin digaale ki nga xam ne mooy Xaadim Seen tey open presse bi laa am moo ci njiitu moo ci njëkk tey yàlla def na lu gën maa ngi koy ñaanal yàlla xaru ko àjjana tey amaana sax open presse bi mënoon na bañ am parce que ba benn moment mu bëggoon ko renvoyer mais kon ci contrat contrat moomu tënk te tamit aussi euh, dañ nekk ci dernière virage boo xam ni moo yor promotion wu combat bi mënuñu baax ñàkk bañ a teew mais tey vraiment lu ñu waroon def dëgg dëgg dëgg sax dañ ko wàññi defuñu ko parce que am benn benn naxar maa ngi jaale maa ngi koy jaale Pikine gi yëpp àdduna bi yëpp rawatina tamit aussi waa këram ak waa Kafaga mm. waaw su ma jugee ci loolu nag maa ngi nuyu Isaaxa monsieur le maire Isaaxa saa yu ma gersoo gis ko Isaaxa Diop vraiment ku sonn ci man la du nuyu tamit aussi euh, du nuy Fallou Diagne Fallou Gaye Grand Fall ñu ngi koy nuyu tamit aussi bu baax a baax. di nuy yees di nuyu tamit moo fi nekk Ablaye ab Ablaye Timbo tamit aussi ñu ngi koy nuyu bu baax. di ko remercier bu baax a baax a baax. Mm-hmm. Abdou Karim Sall tamit aussi amuñu fayam. mention spéciale Abdou Karim Sall. Mm-hmm. parce que ku sonn ci combat bi la. ku ci daj coonoom la xaalisam mag léppam dara fekkewu ko. Mm-hmm. kon tamit aussi ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax. Ibu Jumbo tamit aussi ñu ngi koy nuyu baax sonn ci combat bi. jàpp na ci combat bu baax Khady trasa tamit aussi vraiment maa ngi koy nuyu bu baax. sonn na ci lu ne dañ na ci. maa ngi nuyu tamit aussi Binta. Binta tamit gis naa ko moom moo fi ñëw tey tamit aussi Khady Traza ñu ngi koy nuyu bu baax. di nuyu di nuyu sama famille yëpp maa ngi nuyu Pape Ngom sama mag. Asu Ngom Souleymane Ngom Khadim Ngom. aw Ngom famille yëpp maa ngi leen di nuyu famille Ngomeen yëpp tamit aussi famille Sambu Xayaan Ngom bi yëpp maa ngi nuyu di tamit aussi samay goro bu baax a baax a baax a baax tamit aussi Mosor Diop bu baax a baax ku sonn ci combat bi la sori na ma même ciy jàpp di nuyu tamit di nuyu ñëpp di nuyu aussi suma igri commencé ci stade bi ci kaw ba ci suuf jàpp lañu ma teew na booy yu mbër yi may àndal yi nga xam ne tamit aussi ku ci mel ni Tyson 2 son na ci ku ci mel ni Doudou Sané xam nga ku ci mel ni Ratel Assane Orange bu ma limee rek duñ fi jógee booy joolaa xam nga équipe yëpp maa ngi nuyu xaali tamit aussi gis naa ko fii xaali mbay tamit aussi maa ko ci man la maa ak ëmb gerte gis ko moo ko ëmb di ba jaan maa bu baax maître Ratel nuyu naa ko baax tamit aussi sécurité bi tamit aussi vraiment kontaan naa ci ak tamit suma gars yi yor routière yeeg dóoru yi aja Pape Moussa ñëw waaw maa ngi nuyu ñëpp ku lim rek ah. léegi ñu dem droit bi ëmb mën nañ xam naka ngay waajalee sa diggante ak bombar ji ndax yow ak bombardier mii nañ te ngeen am nga fu ngeen jaar waaw ñu koy préparé préparé daanaka bu bu bu dara xel préparé nañ combat bi maanaam ni ñu ko war a préparé lépp lu ci war a def rek def nañ ko ci bàyyi benn détail di ci ñaan yàlla suñu borom moom mu yor ndam maa ngi koy tàll loxo yàlla mu ma yàlla suñu borom may ndam incha allah rabbi. combat bi da nga ci yokk poids wala. non yokk ma ci poids gis ngeen ma poids yokkul moom xam nga naa espoir joob nañ ñi ci war a nekk nañ ci un poids de forme macha allah daal. di nuyu tamit aussi suma këcc kañ yi ñu ko bu baax Diallo maa ngi koy bu baax a baax a may door xale ba tool fii la. Bolo tamit aussi mi ngi fii Bolo ku sonni tamit aussi combat bi la. maa ngi nuyu waa SK yëpp. ko jigoo maa ngi nuyu aussi tamit bu baax a baax a baax ak waa salle def sport Gambien yi tamit aussi aw ma seen fay maa ngi di nuyu. ah dinañ ñëw ci nuyu yi Eumeu. Ah, ah. mu mel ni da nga am combat boo xamante ni comme ci moom nga jëlee woon euh, roi des arènes bi te Bombardier dañu woon jeexaat ndax yow da ngay jeex wala doo jeex. non jeexaat moom mënut a ñàkk foog ñu jeexaat te dinañ for doom incha allah. waaw. Mm-hmm. Ah. léegi euh, gars yi may lañ ñu tuuti. Eumeu Sène ñu bëgg xam ndax combat bi ak sa parapor ak sa combat bi nga njëkk am ak Bombardier. Mm. est-ce que ni nga entraîné woon ci combat boobu ak ni nga ko fonke woon noonu nga fonke combat bi. non bii la bii la ëppee incha allah bii la rawee. Mm-hmm. voilà. combat bi moom loolu moom saa yi nañ def ko ba le 27 incha allah. mu mel ni mu mel ni Bombardier nee na li des ci carrière mu mel ni Bombardier nee na li des ci carrière am dootul dem di jëli ji benn mbër. te moom forum la ak lu lamb xam nañ ne forum la arbitre sifflé mbër di dox ci kaw ndax loolu yaa ngi koy bàyyi dégguma la wax de. dama ne. waxaat ku ma dégg waaw. Bombardier. Ah. dafa mel ni nee na li des ci carrière ah. dootul dem. Ah. di jëli benn mbër. ta ca digg géew ba. ah day toog di la xaar. ndax xam nga dina dem wala du dem. non combat bi mënu ci toog di xaar dañuy daje. mu mënut a ñàkk la. day ñëw. non. ci micro ngay waxee. senegal ñoo lay seetaan adduna ñoo lay seetaan. te combat boobu combat capital la bu am bu ji taxawee est-ce que di ko jëli. jàmbaar le 27 ñu ngi ci woo ñëpp denc ci bu neex jàmbaar la yàlla ñu yàlla suturaal mu ngi dajeeg ndaanaan dëgg yaa ngi dégg wax bi. waaw yàlla ñu yàlla daal may ndam mais combat buñ fonk la jàmbaar. di nga xeex ak Bombardier. lu combat bi laaj rek jàmbaar kuy dem guerre lépp ngay préparé. non am dañu bëgg Sénégalais yi tey li war a ëppoon presse bi dañoo bëgg xam tey Eumeu Sène lan la war a indil Bombardier amoo danta wala kon kenn du dem guerre di wax armes yi ngay yóbbu mais ay armes fatales yi ñëw incha allah. mais ñu bëri sànq dañ la jox suñu micro. mais dañ ne bu Bombardier taxawee Eumeu seen taxaw combat bi match nul la gën a jege te amateurs yi xaaruñu loolu. est-ce que loolu yaa ngi koy mel ñu noonu. Mm-hmm. jàmbaar la may jàmbaar. loolu bu ko kenn séntu ci komba bi. Mm-hmm. Mm. ñëwal Mamadou Diouf mee na am na deux questions pour ëmm waxal waxal mu dégg la. mais ëmm ñu ngi nuyu. waaw seen ñu ngi lay nuyu d'abord di noyu mbooloo bi yëpp euh, am naa ñaari question pour yow benn bi dañu ko jël ci ji mu ne génne na slogan bu bees nee na ku ko dóor abal ko yet bi dóor fayu. Hmm. beneen bi sa ñàkkateew mbuur samedi bëggoon nañoo xam lan moo ko waral. waaw ñàkk teew bi du leen rek lu ñëw voyage yi xam nga ci diggante bi aussi temps bi xool nañ ko mais duñ mën a fekk mbuur parce que tey boo xoolee ci ñu njëkk a d'accord dem mbuur man ci laa bokk aussi du dëgg parce que yàgg na ñëw mais ñëw bu muy ñëw Dakar tamit daje lay doon man may jug dem ñu daje ci ci ci ci télé wala ñu daje feneen kon dajale la te tamit aussi xëy na noonu la ko yàlla suñu borom tuddee mais tamit aussi amul benn problème waa mbuur yëpp maa ngi leen di jégalu ci ñàkk baja teew bi ak Sénégalais yëpp voilà te tamit Mbour dafa bari ay supporters tey sama supporters yi demoon mënu ma wax nu mu toll. su ma ko daanee dem Mbour nuyu gars yi. moo daan tax. jaayef amoo maa ngi lay siyaar baax a baax. waaw dañu gis ne am nga ñaari avance benn bi yow ak benn bi yow ak nag bi amee ñaari avance première coupe Balla Gaye la amoon dafa la fi nee na yar bi njëkk te yow bii mooy sa première coupe sa diggante ak Bombardier nga jóge ci ñaari défaite nan nga waaw ñu koy préparé jàmbaar ñu waajal combat bi waajal bu bu yéeme. nee na bii mooy xupp bi. <laughs> yàlla mi am ndam yàlla yàlla may ndam. incha allah nee na mooy xupp bi ndax bii mooy ñaari ñaari yaa ngi ci ñaari contrat sa digganteeg Bombardier ak sa digganteeg Balla Gaye te bii mooy premier xupp bi. incha ci kàttanu yàlla ci bombar Bombardier lañ nekk fu mu toll nii Balla Gaye ñëwagul am na yeneen combat yu mu war a bëri après ñu soog a daje. revanche mooy nag. ku xam Eumeu Sène xam ne joxe nga revanche jël nga revanche. joxewoon nga revanche sa diggante Gris jëloon nga revanche 6 mars boobu na nga woon mbër bi carrément ci jeexaay bi ci entraînement bi tey ma gis nga na méttee woon sa diggante Gris Bordeaux ba jeex mën nañ koo xaar sa diggante ak combat bi. combat bi lépp la ñu waajal jàmbaar. <laughs> waaw. liggéey bi métti rek. nee na dafa gis ne da nga wàññeeku lan moo tax nga wàññi poids bi. waaw liggéey bi rek la. liggéey bi boo bëggee bëri moom foo nga wàññi poids wala. non non di question wàññi poids xëy na cardio bi li ñu liggéey moo bëri rek. waa li ñu liggéey ci combat bi moo waral lool du dëgg mais nag ñu ngi ñaan yàlla yàlla mi am ndam yàlla ñu yàlla may ndam jàmbaar incha allah amatir nañ kontaan nañ ci combat bi neex. Hmm. ñu lay fay. tey benn question ku fi jël premier combat bi nga jël waa des rek. Mm, koy <laughs> na ndax ku bi nga xamante ni bombardier joxoon na la ko. ah euh. nee na ndax yaa ngi sóoraale coup bi nga xamante ni sa premier combat bi nga jël roi des arènes ak bombardier coup boobu la bombardier jox ndax yaa ngi koy non jàmbaar fu mu toll nii sóoruma loolu wax dëgg yàlla waaw yàlla xam nga di di jël yu kaay kii yi demee noonu mais amuñu leen daal lu ñuy ragal ci combat bi du xeex bi du bëre bi ku ma xam-xam ni yàgg naa jur ay coup fatal téye suma ngor ak suma conscience dem liggéey yàlla may ndam kon loolu nekkul dara combat la mën na jël coup mën naa jël coup waaye moom na jël coup ci bii incha allah dañuy ñaan. lan ngay na lan ngay wax say supporter comme yaa yaay dalal bombardier fii ci arène nationale. pour bu lamb ji jeexee ñu bañ di daj ay sées. di parce que loolu sax léegi CNG de lutte bi ak sécurité bi jël nañ ci matuwaay yu wóor bu yeboon ak supporter yi bàyyi ci xel ñu déglu leen monsieur Eumeu Sène ci question. man ay supporter noobu laa am parce que samay supporter mosu ñu def loolu. te je pense que duñ ko def waaw. combat bi euh, ñu ngi koy waajal kon ni ñoom préparé yenn combat yi je pense que du nekk combat bu soof ku xam ku ne xam na Bombardier jom ji ne ci moom ku ne xam ne Eumeu Sène tamit fulla ji ne ci moom kon nu mu waxee bu ko bëree rek ji moom incha allah dina doon làmb ji gaaw incha allah. léegi dernière question gars yi waaw waaw. Eh, booy ñoom nee nañ. kan kan moo laaj loolu. Bamba Bamba Major TV nee na présence su Boy Niang day wane ni amul benn ñagas ñagas bu am seen diggante na jàmbaar ñii sumay rak lañ maa seen mag du dëgg kon euh, doxaay mag rek laay doxee du dëgg kilifa laa jëfi kilifa laay doxee sumay rak lañ du dëgg amul benn problème jullit laa jéggal naa ñëpp baal naa ñëpp sumay rak lañ suñu amee bis naa ci teew dinaa def ko nu ma doon def parce que àdduna amul solo àdduna dafa gàtt. du dëgg jaajëf maa ngi nuyu nag. léegi ñu bàyyi la nga nga maa ngi nuyu nag waa Pikine yëpp ak mbëru Pikine yëpp di ñaanal euh, Ama combat bi muy dugg yàlla may ko ci mu jël roi bi mu gagné. booy ñaa combat mi nekk ci kanam tamit aussi maa ngi koy ñaan yàlla may ko ndam. sook tamit aussi maa ngi ñaanal yàlla suñu borom may ko ndam. ak mbëru Pikine yëpp Ziza ñëpp maa ngi seen ginnaaw. man drapeau Pikine moo ma ñor te maa ngi seen ginnaaw incha allah su ma jógee ci nag maa ngi euh, santaat sërif yi bu baax a baax maa ngi sant sërif yëpp bayt rasul bi yëpp nguma ngéewul tamit aussi maa nuyu du nuyu waa AS Pikine jóge fa tamit aussi du nuyu waa Casamance bu baax sama mbokku joolaa yi du nuyu tamit aussi sama mbokku séeréer yi di ñaanal Casamance yàlla na fa jàmm am parce que Sénégal benn bopp rek kenn mënu ko xar ñaar waa Gambie tamit aussi aw ma seen fay du nuyuwaat waa Pikine du nuyuwaat waa Pikine du nuyuwaat waa Pikine aw ma lu Pikine fi laa juddoo yaroo fi màggee fi doomu Pikine cent pour cent la du nuyu waa ginnaaw raay tamit aussi bu baax du nuyu tamit aussi waa Mbaaw jigéenu Mbaaw bi tamit aussi maa ngi leen di nuyu parce jigéenu Mbaaw yëpp dañ dañ def délégation bu mag jël lu ñu am yëpp boole ko ñooy jàppale mu si combat xool ñu ne tey ni maa ngi gagné lii wala maa ngi gagné nangam ñu jël sa ñàkk yëpp def ko ci. ñu nii tamit aussi seen borom kër yi leen bàyyi tamit aussi ak ñi tamit ñu leen ñi leen ñi leen doole ci loolu maa ngi sant waa mbaaw bu baax a baax a baax